te itam yàlla dee la njëkk a bind dund xalaxal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan sunu borom nee na dama bind dee bind dund ngir nattu leen ana mooy gën a rafet jëf bu ngeen dellusee ci man kon mu mel ni àddina passage la ñun ñëpp dañu fiy jaar jàll li am solo rek mooy boo fi jaaree sa jaaree na rafet dee nag la Abu Bakrin Siddiq waxoon rek moo ci nekk ndax Abu Bakrin bi Seydina Muhammad génnee àddina dafa am ku ko bind lettre ne ko xanaa di nga noppalu comme sa waaja dem na Abu Bakrin tontu ko ne ko almawtu baabun wa kullu naasu daaxiluhu dee buntu la rek te ñëpp ciy jaar segam ki gën ñëpp muy Seydina Muhammad moo nekk ci biir suuf ku dul yonent bi sa bis dana ñëw li am solo rek mooy ñu rafetal jëfin yi defaraat suñuy jikko fonk jaamu yàlla bëggante soppante te yàlla tax loolu rek moom mooy l'essentiel bi ci àddina kon ñu ngi ñaan suñu wayjur bi dem yal na yàlla wanale koog yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu yéege ko ca aljanna ya gën a kawe nit nag su génnee àddina doo ko wax dara lu dul siggil ndigaale li nu bokk te muy am yërmande yàlla yërëm ko ndax tey mbokk yi waxuma la sama yonent bi waaye suñu sëriñ yi nu gën a yaakaar soppante tey boo leen gestoo doo leen gis boo tuddee Cheikhul Khadim ñu ne la mi ngi ci biir suuf nga tudd Seydil Hadj Malick ñu ne mi ngi ci biir suuf mag moo tudd ñu ne mi ngi ci biir suuf kon la nga cay te mooy nit delluwaayam du fenn fu dul suuf yal na yàlla yërëm ko mook way daw lu jullit yam fa fekk yépp ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah comme ñaan du doy ñu bokk jàngandoo Fatiha ñun ñëpp fukki qul huwallahu ahad ak benn yéene ko suñu wayjur wi waaye yàlla jotale ko mboolem ñu tëdd barzaq ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatiha sukk lixlaas ak boobu nag bismillah yàlla jéego ba léegi yéen a fi di ñëw ñu ne ñu leen di nuyu ñu leen di sant ñu leen di jaajëfal ñu war bu gudd ñu ngi defal bii te bàyyi nañu leen yàlla yàlla leen yàlla fay kon ku fi teew rek indi soxla yàlla sa yàlla xaw ku fi indi jàngoro yàlla ko yàlla faj kon lu bëgg ci lu baax yàlla ko yàlla gaaral wala suñu yàlla ko yàlla gën a yokkal te barkeel ko incha allah kon soo ñu bëri nag comme nga soo nga soo am nga dañuy jox message góor ko war a mu yëngal tuuti góor gi seen. ak nabi al muntaza dunya مرحبا بي الممتاز دنيا بدي

محمد فكل فوق تسمية وفاق جمعنا يا مؤمنا درجة الوفاء خب المرسلين يا تلاو درجات رسلي كل نبي ورسول يطاف خلق الوسيلة هو المتبع حمدنا ما ما مساء والفاء بحمده إلا ما سمع جعل وانا من كل سنة نيوتو ونك أمك إجي délégation bi nga dem représenté bu ko defee leen incité sax pour bañ a ànd ak moom dellu si di gërëm aussi di bañ a sant parce que bu ko ne ko lool lool lool dañuy wax ak moom ba dem ci dugub ji joueurs yi également douzième Gaïndé waa Alekaza waa lekk bi yëpp dañ dem bis ko sax nag ku nekk nga former benn parce que nag Sénégal bi ñu naan kàpp yi moom dafa naan ni ngeen xam ne ñun benn kàpp yi lañu bi mën nañ tourné nekk et ko wéyee ba boo ne image bi mu joxe ci football bi dafa rafet lool man nag suñu diggante du ma daal du ñu sori parce que maillot bi muy footballé sax numéro 8 dafa naa man maa ko ko jox dafa jël numéro 8 moom lay sol ba tey. papaam maa ngi moom ñoo dugandoo Gomi quartier en 1981 ba tey moo seen kii ci Tëngéej Cheikh Mouhamadou Mourtada doomu Serigne Serigne Touba Xaadimu Rasuul li mu wax ci papaam man doy na ma sëkk mu ne incha allahu rabi fa mu nekk moom gën a fukki mu ko te témoignage yi def yi rafet waa koñ bi d'accord nañ wàll doom nag li mu def ci président Touré doom jaa mu ko sant bi Touré wàccee liggéey di président ni mu terale Fapal tey noonu la terale Touré parce que dara maa ngi ba moo tiggéey ñun ñu wax ak moom aussi ñu ngi lay pouponnière yoo xam ne ñu ngi muur ay gën mooy islam da ngay ramwaale ci nekk parce man maa ni sama doom nga bëri toog ma am kàddu ja moom maa ko bàyyi saa ni ko doon famille bi dem na foo xam ne sori dinaa ko loolu président Augustin Senghor ak l' a ko heures la délégation du de la république parce que nag yàlla defal na loo xam ne tey foo xam ne am na lu xew famille. kon borom njiitum réew mi yëpp ci boppam loolu defe naa ku ne ñaan nga sa am loolu te teraanga moom yàlla na topp bàyyi bi nga xam ne moo ko ci yàlla mu mel ni mu mel ba ñun ñi defal ko seen doom bopp incha allah yàlla defal nañ jàmm yokk xéwal euh, salaamaaleykum ñoom nag euh, man may mascotte des équipes nationales du Sénégal ne ci àdduna bi tey bu ñu fekkee fii man ñi incha allah 16 heures lañ war a dem Côte yàlla def loolu fekk fi dañu déplacé wu ñëw ci moom ndax dañu xam nit ki dayo bi ñu am ak ni mu mel ni ko président Mbaye Diouf waxee rek noonu la ñëpp dañoo jàpp ne mooy capitaine bu mooy capitaine ndax dafa nekk capitaine boo xam ne Cheikh ñu ko téye ci équipe bi mooy mën a defaree mën a jegale nit ñi mën a takkale nit ñi te la ko andi ci biir xam moom jóge da ko jële wut ci ay waajuram jële ko ci quartier bi mu màggee kon du mel du doon leader bi ñu doon tey Cheikhou xeebul kenn Cheikhou ku mu gis da ñëw jàpp na ko boppam xeebul kenn kon vraiment dañu ñaanal yàlla góor gi suuf euh, sax lool ci kawam te eh, wax dëgg fa yàlla macha allah yal na yàlla yërëm yal na yàlla def ay mënees. oustaz bi imam Youssouf. salaamaaleykum wa rahmatullah. Thank you. xool

salaahu mais ñun nag moom moo rek a mu ne la ma yetti maanaam amalaw mbokk yi diggante yi nii du kër du ay armeel la te armeel am na ci lislaam lu imma rawdatun min rawaati janna aw xufratun min xubat naar li ngeen yaakaar ba ngeen ñëpp ngeen daje mu nekk ci seen sëñ bi léegi li mu leen waroon jàngal mooy nekk li ñuy daw bu dara la nekk te yëpp moo gaaw a fàtte loolu mooy yàlla di fàttali mooy lan yaa ayyuhal insaan maa gharraka bi rabbikal kariim yow doomu aadama lan moo la fàttaloo bi rabbikal kariim lan moo tax place lan moo tax daraja lan moo tax ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك mënul nekk ay jàppante ak ay wax parce que moom soxlawul loolu koo xamee ne feebar na ay at tëdd est-ce que ñii nañ fii ku nekk nga waxal sa bopp est-ce que na ñu ku fay ñu wala yàlla fay ñu ñaar yooyu rek moo am fayu yàlla ak fayu nit fayu yàlla nag moom du dee wala aaxiratu xayrun wa abqa fay nit nag mën na am poste yooyu jiital ñaari fan li ngeen di waxoon moo ne damay armele moo fay nekk yaqul insan maali maali maali sama alal sama alal sama alal lan nga am sama alal bi illa say an xamistahu fa ablaytahu loolu la ñu yëpp mu rab ëllëg ko xam aw akatahu baax wala nga lekk bu rees te xam nga fan lay aw sadaqta bihi fa am bayta wala boog nga dawal ma sa bàmmeel te loolu mooy ñu intéressé nit ñi ngir yàlla may leen imaam yi may leen kilifa yi ngeen ci jàng ci lii parce que lii dara du jëriñ lu dul lii yàlla nee na هرم لكي آنام شهيدها من بين أيديهم تتقوا بالأرض السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di julli te loolu di ñu si yàlla Pa Sané fii yaayam lan ci la Sané dañ fii Pantala dëkk bi moom laa yoroon waxtu imam bële moo tax ma ñëw fii Moussa Sané Tongo man lii taxaw ma wax ko li ñu Senghor